الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بقي جلدي بقي سنغال بقي تيتو président de la République ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a kawe nuyoo bu ne nag la ko tax a jóg mooy wone ak am solo te nuyoo tey bii nag ci jataay bu mag bii xam leen ne réewum Sénégal tam nekk ca bopp ba président Macky Sall am na lool ci jataay yu mel nii yaakaar am na yaakaar lool ci nit ñu mel ne nit ñi organiser séminaire bi man mi nga xam ne yàlla dogal na yónnent bi jaar ci sama loxo tam mu mel na ndongo laa ci daara ji boo xam ne mat naa seere ci yónnent bii ñu ma yónni ne naa ko jotal dalal sunu gan yu tedd yi yëkkati cant ak confiance boo xam ne président da koo am ci docteur Ahmed Lo mii toog jiite jataay bii jiite kulliya bii nga xam ne ni fi la jataay bi amee docteur Ahmed du ma ne tey laa ko mën a wax wala tey laa ko njëkk a wax waaye président gën na ma répéteel yaakaar jum am ci yow yaakaar ju Sénégal am ci yow confiance bu ñu am boo xam ne bu doon ñiy tuddoo lislaam ñépp am nañ sens de responsabilité bi nga xam ne moom nga am ak say collaborateur mu ne kon Sénégal dana gën a noy Sénégal dana gën am dalu xel waaye du ñu ñàkk yaakaar fii ak kenn nit ku kenn nit ku yor ni ko imaam waxe léegi lisaana sidqin am na ci mbooloo mi yaakaar mënta yàkkee kon mi ngi tàllal loxo euh, comité bi ngeen tëral lii ngeen di doxal ca diina te diina rekk lal ko te àdduna toll foo xam ne léeg-léeg ñu jaaxle ndax bu problème nekkee diggante jullit ak jullit bu boobaa jullit bu dëggal dafay jaaxle waaye lu xew lu ne ndekete ñàkk waxtaan moo xew moo am waaye yow bi mu la découvrir waxtaan ak yow gis say yëngutu am bu baax say appui ci sa xam-xam ak ci say relation réewum Sénégal nee na ci sa sama làmmiñ wi président de la république mi ngi yëkkati ak cant ak ngërëm ak yaakaar ju rëy di ko jëmale ci yow ak képp koo xam ne doxiin wu leer doxiinu dëgg doxiin wu am jàmm wi ngay doxe mi ngi koy doxee senegal nee na dana ko jaarale ci yow tàllal kooka loxo ñu xam ne senegal kat diine lu fi am doole la wala diine rek moo fi nekk leneen lu fi jéem a ñëw te bokkut ci diine bu boobaa du gouvernement mooy jàmmaarloog loola waaye nun euh, woy diine sun responsabilité la ñu taxaw défendre l'islam mi nga xamné bu doon jëm ju ñu wara défendre ben soldat rek la am muy bi tuddu muslim amut muslim bu gauche muslim bu droite waye muslim rek mo am te loolu lañ gis ci sa jëm ji oustaz euh, yeen mbokk yi nga xamné nak ma maa jakarlo jàkkaarloo ci jotaay bi ma leen di xamal ne yeen bu baax sama waxu démb moy sama waxu tay su ma nekkee fii ak su ma fi nekkul kàddu gi may wax mooy lu selle nii liggéey bu jube nii liggéey bu dëppoo nii ak diine ku ci defarut lu baax nga war cee maandu kon ci keppaaru docteur Ahmad na seen xel dal Sénégalu Sénégal bëtu jàmm rek la leen di xool ndax jàmm rek la gis ci yéen lépp lu war loo xam ne Sénégal laaj na ko wala ngeen laaj ko senegal wala ngeen soxla ko ci senegal president neena na seen xel dal fu ngeen jaare ci docteur lepp lu war ci yeen dana ko def te nak neena yeen seenu laaj bare li ngeen soxla rek moy ku leen bàyyi ngeen pratiquer seen diine te lolu senegal yag na fi ñepp lolu lañ bëgg kon mi ngi teje kaddu gi lo xam neena ma bul ko fatte nang ko wax moy nak sa bu ngeen julle ba nopi ngeen gën di dolli ñaan Senegal ndax Sénégal kat jàmm rek moo fi xaj te bu ñu toogee di waxtaan nii rek dafa fekk ne jàmm am na kon yàlla yàlla saxal jàmm encore seen gan ñu tedd ñi ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban di ñaan relation bu historique bi nga xam ne moo am diggante Sénégal ak dawlatu Kuwait yàlla gën koo suuxat mu gën a naat jëm ci bépp réew boo xam ne nii réewu jullit la bépp réew boo xam ne réewu arab boo xam ne nii réewu africain la yàlla def fi jàmm te jàmm ji yàlla sax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jubluwaayam tey mooy jéem a bëre ba mboolem étudiant boo xam ne yaa ngi fiy jàng di fiy jeexal di am bac xam ngeen ne léegi Sénégal bagu arab am na fi boo xam ne gouvernement Sénégal moom moo ko génne at mu nekk ab lim bu mag a mag a mag dañuy yor bag boobu te bi ba léegi nag fu ñu leen orienté fu leer moom amagut loolu moo tax bokk na ci jubluwaayu école bi mu gën a yaatu boo mën a jul jël lim bu mag boo xam ne buñ mënta jël ñooñu ñëpp it danañ ci mën a jël nag lim bu mag boo xam ne dana saafara foofu jafe-jafe boo xam ne réew mi mi ngi koy tàmbali dund. هديت قلبي شكرا waaw tey am nañu mbégte bu baax a baax dalal docteur Mouhamed Ahmed Lo euh, waaye balaa ñu koy dugg ci waxtaan wi euh, dafa am ndam boo xam ne Sénégal daf ko am yàlla jaare la ko ci moom mooy bi jullit yi dajee Makka problème bi nga xam ne mooy Afghanistan nga xam ne daanaka mënatulatuñ seen bopp dara mm-hmm. ñu tànn ay nit ci àddina bi mm-hmm. pour ñu xettali réew ma tegaat ko si jàmm moom dafa bokk si ñi àddina bi tànn pour mu dox foofu jàmm indiwaat ko ci Afghanistan donc foofu alamul islami bi yëpp daje ñu tànn doomu Sénégal jox ko liggéey bu rëy loolu loolu ndamu Sénégal la mm-hmm. ñu ngi ko ci félicité di ci félicité waa réew mi yëpp mm-hmm. suñu diplomatie daal ci wàllu diine moom fu ñu dem dañuy respecté yàlla wax loolu am solo yàlla ñu wàll beneen euh, <laughs> diplomatie bi waaw waaw docteur Mouhammad Ahmad Lo kenn ci borom xam yi yi nga xam ne alamul islamique bi yëpp xam nañu ko euh, yàlla def mu yor ci ay ndombo yoo xam ne takkal nañ ko ko ci biir réew mi partout dans le monde ak bitim réew bokk na ci loolu nga xam ne moom lañ ko gën a ràññee tey kulliye bi di daarul istiqaama nga xam ne enseignement supérieur la ci lépp lu aju ci lislaam tey moom mooy ki nga xam ne mooy recteur bi beneen bi ulama yi nga xam ne mbootaay gi nga xam ne moo tënk boroom xam-xam yi nekk ci Afrique kuréel gi yor wàllu fatwa foofu moom mooy ki nga xam ne moo ko jiite waye tamit membre la ci majmaul fiqhi ci rabita al alam al islami lolou len la ci ay ndombo yoo xam ne takkal nañ ko ko tay ci alamul islami bi nit ñop xam ko ci rew mi ak ci bitim rew yàlla def xam-xamam màcc ci yi màcc bari na waye ci liko nit ñi gëna xamé ci adina bi moy xam-xamam màcc ci walu fan bi yi nga xamne dafa rar tay moy xam-xamu hadith loolu mom tay mom la ko ñëpp ràññee ñu bare bare dañuy delu ci mom ci walu hadis tay koku lañu am mbekté ñëw ziare si ko ci émission Al amin docteur mohammed Ahmad Lo al imam alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa euh Cheikh al Amin. ñu ngi leen di dalal bu baaxa baax ci fi ci daara ji. di rafetlu téway bi ak. sortie bi ngeen génn pour hmm. dikk dajeeg seen mel mbokkum jullit moom ndonga la ci ndonga yi waaw waaw eh, kon bismillah ñu waaye li ma eh, yi ma yi ma lim ni sànq ci mooy ay mbir yoo xam ne ci wàllu xam-xam yàlla def na ñu xamee la ko ci àddina bi hmm. eh, du ma fàtte mukk 2014 hmm. bi ñu ñëwee Makka fekkee nañ mel ndaje moo xam ne ulama Afrique yëpp fa daje waaye keroog Sénégal siggi na fa keroog ñun ñi nga xam ne teewoon nañ fa ñi bokk ci mouvement islamique yi ci senegal ak këru diine yi ci ñëpp keroog wax dëgg yàlla euh, biñ ne docteur Mouhamed Ahmed Lo ñun ñëpp keroog rëcc wuñ liñ dooñee sénégalais euh, loolu lan nga ñu ciy wax parce que loolu fierté nga ci réew mi wax dëgg yàlla ah alhamdulilah xam nga nag euh, ab sénégalais moom day bëgg mbokkum mbokkum sénégalais mm-hmm. te it loolu sax daanaka bindu sunu borom tabaraka wa ci nit mm-hmm. kenn ku nekk ñoom féeteel bokk ak ñoom dëkk bokk ak ñoom kër bokk ak ñoom am réew mhm. su yëgee loo xam ne lu naqari la day day metti ci yow waaw su amee loo xam ne teraanga la it mhm. surtout koo xam ne da génn sam réew ba sori mhm. jékki-jékki yëg loo xam ne teraanga la it wax dëgg yàlla ña nga àndal ñu bokk jóge sam réew loolu itam day daal di doon loo xam ne lu am solo la defe naa ne su ma juumul nettali boobu bi ngay nettali am na sëriñ kilifa gu mag ci borom xam-xam yu mag yi بوك تي هيئه كبار العلماء بالعرب السعودي الشيخ عبد الله المطلق بنا في هناك كونسي سبيسيال تي رواب العرب السعودي موم لاج ايفيتي وون تي بيس بوبو مي وقتان بام يال اك تي بيان تومب بو خاني yéen africain yi xam naa dañ koy fóon ne a <laughs> waaw dëgg la kon lii may wax dana ci wax lu dana nit ko ma nga ne waaw mu daal di dëgg la dëgg la ñu dikk ci wetam waaw mu daal ñu wax waaw dëgg la doon waaw dëgg la dëgg la xam naa loolu moom waaw mbégte la woon ci Sénégal waaw mbégte la woon ci ñun parce que ñun wax dëgg yàlla keroog euh, boroom xam-xam yi ci àddina bi ñu bëree bëri teewee nañ ko te keroog ndeysaan du ma fàttale mukk keroog euh, professeur maxtar Kébé am na mbégte ak euh, sëñ Mbacke Abdourahmane وغيرهم من العلماء والمشايخ فخر الله وانت واو دق الله دق يالا لولو نيجي سنت بو باخ دكتور احمد خمنا نه واخ دق يالا لي ني ورا واخ اك يو مجمع الفقه بيغا خمنه التابع للعالم الاسلامي nga bok ci walu euh, euh, euh, fatwa fofu lolu lolu nekut lu yomb membre nga fofu legi ci yeen critère lañ la tanne ba nga ligue islamique mondial bi. xam nga ligue islamique mondial moom. man ci euh, chercheur laa fa. Mhm. depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit. waaw. seeni conférence ak lu dul ay conférence sax ñu dem ba mu yàgg benn tem teew boo xam ne dañ caa war a gëstu ñu yónnee ma. Mhm. ne ma naa ci gëstu delloo leen. waaw comme niñ koy defee ci euh, conseil scientifique bi nekk Koweït itam. Mhm. loolu dañ koy def. biñ demee nag ba nga xam ne. Union des oulémas mm-hmm. d'Afrique mm-hmm. sosu na mm-hmm. eh, ñeent fukki réew ñett nekk ci yàlla dogal suñu mbokki africain yooyu njiit la sax lañ bëggoon def nag yàlla dogal ma gàntu waaw eh, ndax ay sabab yu bare bari bi tuddee daal convaincre naa leen waaw ñu gis ne wàllu fatwa bi kon faaw ma yore ko ak la ñuy tuddee majlisul umana xam naa conseil d' administration bi waaw ñaari yan yooyu lañ ma yen ci Union des oulémas d'Afrique ñaare ci al majmaul fiq yi muy conseil scientifique bu mag bi nga xam ne moo topp ligue islamique mondiale mm-hmm. su ñu tànn ci continent yi ay nit dañuy xool ñi nga xam ne dañuy liggéey ci fatwa lu xaw a takku mm-hmm. yàlla dogal na am nañ ay fatwa yàgg nañ cee liggéey mm-hmm. xëy na man duma spécialiste ci fiq waaye dafa doon loo xam ne dama ko yàgg bëgg dama ee sonn itam di jàng fiq di jàng usul depuis bi ma nekkee ci école di dem ci machaayix yi nga xam ne ñoom ay spécialiste lañ di mhm. jàng ci ñoom ba sori ci loolu mhm. am na benn site bu mag bu ñu tudd al islam su al wa jawaab mhm. euh, ki ko karin cheikh mouhamad munajjid liggéey naa ci ci ñoom ci wàllu fatwa loo xam ne mat na ñetti at yoo xam ne question yi leen di dikkal dañ koy transférer ay gëstukat jox leen ko ñu tontu ca delloo leen ko su ko defee ñu jël ko jox ko ay traducteur mhm. am nañ traducteur yu bëree bëri ci mboolem làkk yi mhm. ndax defe naa ne islam su'aal wa jawaab muy islam question réponse mhm. euh, langue yi ci nekk fi mu toll nii ëpp na ñaar fukki làkk yoo xam ne dañ ko ci jàllale bokk na ci làkku français docteur Khadim Mbacké traduire na leen ci moom itam diir boo xam ne bu yàgg la xëy na nag bi ñuy tànn ci lenn ci Afrique ci conseil scientifique boobu nag ligue islamique mondiale diisoo secrétariat général bu bu euh, union des oulémas d'Afrique mm-hmm. al amaana al amma mm-hmm. ñu jox leen sama tur mm-hmm. ñu ne ah kii de ñoon ci suñuy gëstukat sax la bokkoon waaw depuis ay at yu yàgg yàgg ñu ne ma kon depuis loo xam ne toll na ci ñaari at euh, jàpp nañ sa tur mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy teewe euh, jalasaati al majmaul fiqhi bu yàggul rek ci luy toll ci weer am na ndaje mu amoon foofu fekke nañ ko noonu noonu lay doxee. waaw waaw waaw xam naa ne léegi parce que léeg tamit euh, dëkk yi nit ñi dañuy faral di gis seen bopp daanaka mm-hmm. affaire racisme day xaw day xaw a feeñ. mais yow en tant que nit ku ñuul. Mm-hmm. vraiment te réew yu yëpp ñu dajee ay euh, làkk yëpp fay nekk. Mm-hmm. mais cër boobu ñoom nan lañ nan nga jëflante ak ñoom ba ñu jox la cër boobu noonu parce que man keroog wax dëgg yàlla keroog bi euh, Cheikh Abdoulahi Mutlaq di di di tëb di fóon sa bopp bi malgré ni mu gàttee ni jotu la <laughs> image boobu duma ko fàtte ma ne nit ku nit ku weex tey dem bay tëb di di fóon bopp nit ku ñuul euh, mbooloo yooyu boo ci dajee affaire racisme boobu yëpp dàqu nan nga def tey ba ñu ba ñu ba ñu jiital la ci seen biir ala kulli xaal daanaka mënumaa xam mënuma koo xam ndax du luñ fàggu itam mm-hmm. euh, man li ma jàpp mooy nit ki nga xam ne day liggéeyal xam-xam ak diine mm-hmm. day nekk ci loola rek su koy defit boole ci nag euh, fulla mhm. ak fayda ak mhm. mat mhm. maanaam ñu bañ laa fekk ci lu tuuti waaw lu bari ci suñ mbokk yi léeg-léeg ñu xaw leen a doyadal ci ay jataay waaw mais fekk li koy waral ci ñoom la d'accord léeg-léeg euh, buñ taxawee ci kanam yeneen i boroomi xam-xam euh, jamono yu nekk dañuy wone ne seen seenu doyadi léeg-léeg nga gis ñoo xam ne loolu la ñuy wone dëgg la bu fekkee doyoo di jàpp ne xam-xam moom dee sa war a continuer di ko sàkk ba boo gisee ku la ëpp xam-xam nga sàkku ci moom xam-xam loolu moom mhm. ku baax ku ne loolu mooy sa melukaan waaw waaye nag bu la wóoree ne kii ab boroom xam-xam la boo xam ne mhm. su ngeen xoolee amaana yéen a bokk fu ngeen jànge mhm. amaana ba ngeen di jàng xamante ngeen sax ba wëtuwut yow say kaye moom ci la doon jànge <laughs> waaw waaye yàlla jox na ko nag place bu kawe boo xam ne fa la toog place bu mel noonu yow bu dee ci àdduna toogu ba place bu mel noonu loolu wërta tax mhm. nga nga di ko tuutal sa bopp di ko xebal ay dàllam nag waaw <laughs> lu mel noonu ñaare moom duñ ko faral di nangu bu waxante jotee nag ci discussion mhm. ci wàllu xam-xam mhm. boo waxee joxe loo xam ne jàpp nañ ne du noonu danañ la wax ne du noonu waaw te danañ ko gëstu ndax Cheikh Abdallah moomu am na masala yoo xam ne dañ faa jaar nag da ngeen fa jàppante yàgg yàgg loolu xaw naa yàgg ci la jógee nag <laughs> dëgg la xaw wàññi lu bare bari ndax dañoo mos a daje ci naa 2002 ci conférence bu amoon foofa. Mm-hmm. borom xam-xam yu mag a nga fa mm-hmm. euh, ñu wax fa ba dugg ci masalam muur kanamu jigéen. Mm-hmm. borom xam-xam yi Arabie Saoudite loolu mooy seen fatwa. ne jigéen daa war a muur kanam war maanaam dafa war a nekk. maanaam wujub la wujub la waaw. bi ñu waxee wujub bi nag. man ma ne leen daal baax na moo gën. waaye wujub bi nag moom mënuñu ci fatwa. d'accord maanaam maanaam fii ci Afrique moom. waaw loolu suñ fatwa. waaw dëgg la. Euh, góor googu keroog mu ne ma lu tax. mënut a nekk. waaw ma jox ko nag argument yi nga xam ne moom laa yore. waaw booleel naa ko ci xadiisu Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. bi nga xam ne dafa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. tere na jigéen ji nga xam ne. dafa armal. muy muur xar kanamam. ak ay muy sol ay gants wala muy muur kanamam. Mhm. ma ne ko léegi su fekkoon ne xar kanamu jigéen awra syariatul islam nan lay mën digali jigen jigéen muy mur awraam bo ba mm. bisu aj jot mun ko wunni ko mbolo mu bari mepp dajje ñene ko wunni sa awra bi nga xane dang ko ron mur ci marché ba wala ci wax deug yàlla parce que bu dem mbolo ak ay goor fofu lu gëna bari deug la bi waxe lolou ñu ne cell ñom ñëpp biñu génnee mm-hmm. mu ne ma mu déey ma ne ma li nga wax moy mm-hmm. li dëgër mm-hmm. waye nak leg leg fatwa bu xasse nek ci ci ëb deuk ëpp fa doole maanaam la waaye mu ne moom man bu moo gën waaye nekkul nag obligatoire obligatoire docteur Ahmad Lo moo jiite fii ci Sénégal euh, faculté africain pour les études islamiques mu nekk al kulliyatu al afriqiya li dirasat al islamiyya fi Sénégal euh, mu nekk ko xam ne ku ñu xam ci fa Sénégal mais ku ñu xam ci àdduna bi la ci mbooleem yëngatu conférence wala mbooleem dajaloo bu ñuy def ci lislaam yàlla def na bu dee ci biir réew mi wala bu dee ci biitum réew dinañu koy woo dina ñuy déglu xalaatam lool lool lool ci wàllu bitum réew euh, dama koy wax ne toujours damay faral di dem Arabie Saoudite su ma demee ci place yi nga xam ne xam-xam yi foofu lañ koy taatanee suñu ma laajee ban réew nga dëkk mën a leen Sénégal dañ may laaj na ma est que xam nga al oustaz docteur Ahmad Lo ma leen sama ustaas la su ko defee li xew ci àdduna bi yëpp rawatina li xew ci Afrique rawatina li xew ci Sénégal yëngu-yëngu yi ci wàllu daawa islamiya wàllu appel jëmee ci lislaam woote yi ak coow li ci ajoog yëpp moom dañuy soxla xalaatam ndegam ci bitum réew ñooy soxla xalaatam di ko déglu rawatina ci biir réew mi nga xam ne euh, ci lañu nekk muy Sénégal. su fekkee docteur Ahmed Lo la ma waxoon ci moom daaw ku ma ko laajat leen ren ji lu ko raw lay wax. Eh, ma bàyyeeloo foofu xel tuuti réew mi léeg nga wax dëgg ñuy wër lan moo tax nga wax dëgg te du ñu gis ne dëgg la rek da ko war a wax alxaqu min rabbik la danga ko war a wax ñenn ñi seeni gis-gis mën nañ ne mën naa moo ko jàngal wala li ni mel docteur jàngalu ma tey jii su ma toogoon ci kanamam di ngeen gis mu ne leen carrément kii jàngalu ma ko dama dëkk ci réew mi jàngee fii ci réew mi ci këru diine yi ci kër gi ci réew mi jàngee ci boroom xam-xam yi yàlla baaxe ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne gëstu nañ ci këru diine yi ci réew mi yëpp comme niñ ko mën a tuddee nga xam ne kër gu ci nekk mën nañ toog la mag ma bind ñu toog ak ñoom bi ci waxtaan ak ñoom yaakaar naa ñu bari xam nañ ñu ci te mën naa wax ne man suñu amee rasumaal mooy suñu xam-xam wàll gu nekk ña nga xam ne ñoom ñoo bëgg mu jëm kanam ñoom ñu koy valoriser pour mu jëm kanam te valoriser ko mooy ña ca gën a fës nga jox leen gëdd kon ci wàllu xam-xam tey jii ku ñu ci laaj dañ cay wax docteur Ahmed Lo ben laa bëgg ñëpp bàyyee ko xel li ma gën ci moom mooy al adab yar gi ci moom adabu salaf yar képp koo xamante ne jàng nga maanaam histoire salaf yi maanaam mag ñu baax ñi suñu waxee salaf rek léeg-léeg ñenn ñi bëgg ko féetale fenn kese mag ñu baax ñi ca saxaaba ya ca taabiin ya taabi taabiin ya ba ñëw ci suñu mag ñii ci réew mi xoolale yar gi nekkoon ci ñoom yar ci wàllu waxiin yar ci wàllu doxalin yar ci wàllu lépp kan ci réew mi moko ko mos dégg muy wax ci vidéo wax ju ñaaw jëmele ko ci kenn ci réew mi wala waxin bo xamne waxinu histoire da wala violence wala liko ko niru te lu nekk ndaw ay xale yu ndaw yo xamne xamuñu dara fu nekk lañuy taxaw wax lu nekk way do ko dégg mu wax dara day ne tekk karal xolal bobé yar ñaarel ba moy liñu ñu hubbu watanihi moy bëgg réewam kan mo mos gis ci yéen mom mu tok fenn ci aduna bi mo na day représenter réewam fep ci aduna bi ci réewu islam yëpp mu tok fa teewal fa Sénégal waaye la ca gën a rëy mu teewal fa nit ko ñuul kan moo ko mos a gis ci benn vidéo mu toog fa di xas réewam ne Sénégal de bokkaale rek lañ fi nekkee Sénégal lii rek lañ fi nekkee Sénégal lii fi nekkee da gis ne même problème yu baree bari wala fatawa yi muy def wala yi nga xam ne xam-xam war na ci wax da ngay gis moom du bëgg sa sori ci arab waxtaanu biir kër la koy def wallahi laa la wax nañu topp dem leen ci internet bi sax ngeen xool vidéo yi da gis wol da koy wolofal wolof bu leer nañ ñëpp dégg ko nga xam ne mel ni kuy waxtaan ak ay njabootam ci biir nit xaw ma nañu taxaw seetlu gis na nit ak loo bañ bañ lii asamaan la nel asamaan la waaw xoolal boobee boobee loolu ci bëgg réewam ak activité yi muy def pour ñëpp am xam-xam ñetteel ba mooy li ñu tuddee gazaratul ilm gazaratu ilmihi ci wàllu xam-xam waxoon naa ko daaw ku ko yab ci leneen nga ko mën a yabe waaye du ci xam-xam waaw du ci xam-xam tey ji xam nga li ñu waroon ñu fexee naxante ak moom ba mbind ya nga xam ne moom lay def fale ca kulliya ba muy bidaaya beeg li ni mel ñu andil ñu ko ci aw tele ñëpp di ko suivre ñëpp mën a jëriñu ci xam-xamam muy def ay muy def ay fataawa yoo xamante ne mubashara lay nekk ñëpp di mën a woote di jëriñu ci li nga xam ne moom mooy xam-xamam tey jii ñun suñ ci jëriñut yeneen réew ñu ngi jëriñu ci xam-xamam adduna gi ñu ngi jëriñu ci xam-xamam kon nit da nga koy nangul adduna gépp mënuñoo taxaw nangul ko xam-xamam lijaasa ya ca war mu am ko ñoom nit ñu nangu ko boole ko ci boroom xam-xam yu gën a mag ci adduna bi kon tey ji te soo waxee ne lii nekk fa itam yow yaay wax lu la neex ñenteel ba mooy wàccee boppam ba ca nekk loolu képp ku ko fekk këram wala fekk ko ci bërëb bu jàngalekaay bi wala fekk ko ci jotaay yi wàccee boppam boobee nga xamante ne bu yéeme la nga xamante ne ci mag ñu baax ñi rek lañu ko doon jàngee xoolal euh, bokk na ca ba nga xamante ne juróomeel ba mooy li ñu tuddee kasaratul buka lil quran soo commencé jàng al alquran ci kanamam tuuti rek nga gis mu bënn bët yay jooy rom muy rongañal kon lol nonu mbok yi nanu nanu nanu ragal yàlla nanu ragal yàlla tuti waw borom xam-xam bur bi subhanahu wa taala moko fonkal bopam yàlla mom moko fonkal bopam nañu fonk sunuy borom xam-xam buñu nangu mukk kenn di ñu xeebal sunuy borom xam-xam te da ngay gis sax fi may tejé ci lu bari ci ay vidéo day joxe ex suy joxe exemple ci walu jàngale ci walu doxalinu mag ñi da ngay gis même ci walu ciolu ciolu day ñëw xamal la carrément ne mag ñi maam Seydil hajji malik ni la doon solo maam Serigne Touba nii la doon solo mu jox la mag ñi nii lañ doon solo kon surtout ndaw yi nañu teey bu leen kenn jëfandikoo ngir dalal leen ci ay musiba boroom xam-xam yi yàlla buur bi subhanahu wa taala moo leen fonkal boppam te yàlla moo leen aaral boppam bu leen kenn dugal ci lenn bu leen kenn dugal ci lenn xam-xam moom moo di seen dàll la fu ngeen ko fekkee na ngeen ko jël seen dàll la mooy xam-xam maanaam li nga xamante ne moom ngeen soxla li ngeen di wër na nekk xam-xam fu ngeen ko fekk na ngeen ko jël te dafa am lu ñu tuddee baabu kon nañu def ndànk nañu def ndànk waaw li may wax man Cheikh Omar ci rew mi fi la jàngé xam ko waaw ci rew mi fi la jàngé xam ko kuma ko talal micro guddi beccik dama koy wax kon nañu def ndànk te ragal yàlla nañu ragal yàlla bur bi subhanahu wa taala nañu ragal borom bi subhanahu wa taala ci fin de 98 ma yam ci benn nusqa xaw ma 99 defena sax boo xamante ni ñu ne cheikh na docteur Mouhammad Ahmad Lo moo ko taalif daan na dégg turam ci rajo bi ay nit di ko awti awtee di wax kii saaga mag ñi kii ŋàññi mag ñi ki nga xamante ni dafa bind téere di ŋàññi mag ñi man it àndoon naa ci wax joojee ba tax na daan naa ko rëbb sax di wax naan la koo xamante ni moom alkandee ma ci kanamam ndax koo xamante ni lu xawmul awliyaa mooy sa xalima fa koy jooyal li muy tekki mooy moom sa musiba ngi ca sa kaw loolu daan nañ ko wax fu ñu toll daan nañ ci def ay xasaayid sax di ci bind di ko ŋàññee ndax dañoo déggoon ni dafa xasoon suñu sëriñ waaye yàlla àdduna di dox ba yàgg ma yam ci mbindam muy jinaayatu tawilil fasid ah Cheikh Ali li ma lay nekk daw na yaram téere bi keroog ba ma ko yoree di ko liir sama njëkk wax ni ma xool xusa bi laati waa ji ma xool caaxaani waa waaye naka ma ubbi mboolem laaj bu ma masaana dëxëñ di ko laaj nit ñi te uma ci tontu mu mel ni dañ ko ni bindaale ko yàlla may liir téere bi samay rangoon ji tuuru cheikh na docteur mel ni danga ko jox tenaaj mu tiim sama xol di démonté ponti sikki sakay ci nek di ko rocc di sànni lenn lu ci nek daf la nan kurel sangam de dinañ wax nangam ci seen bir waye juyo gi juyo sunna ëpp na waaye laata ñuy juyoog sunna aqlan rek lañ jikko juyo leral la ko aqlan bam leer doora ñew ci sunna di di di di di di indi hadis yo xamanteni ni mosuma koo gis ci sama dund ba pare di ko taqrij di indi li nga xamanteni moy ra'yu salaf salih ci ar ci pas pas yu mel ni waye bi ñëwé ba ci babul majaz nak nga xamanteni mo nekkon cieslaayu ahlu kalam yépp majaz nekkon seen cieslaay yaqi cheikh docteur jël mas'alatul majaz def ko no xamanteni man gannaaw ba liratuma ci kutubu ahlu sunna ba gis nga traité mas'alatul majaz ni ko cheikh na docteur traité ci buntu ci téere binaatu tawil fasil mbokk bi cheikh ali mu mel ni yaa jël éponge dugal ko ci ndox dugg ci sama cerveau bi fomp lépp lu ci nekkoon fi ba yaqi lépp sëkk sama bopp waaye taxut ma ñemee inkaar lenn ci lu ma jàppoon nga xamante ni dama ko don noon ñu don par virage yàllaa ko amee woon ndax tëkk yi daan tëkku ci ko jàpp waaye rek ma continuer di jàng loolu ci lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala dogale ñu daal di bàyyi nag lépp loo xamante jàppoon nañ ko lu bokk teg su alquran ak sunna léegi doyluloo alquran ak sunna xam naa ni man duma faral di di bëgg ñu may laaj ñu may laaj ci jëmm yi naan ma diw sàngam loo xam ci moom wala loo xam ci moom ndax sama bopp doy na ma sëkk te xam naa ni euh, la ma yor ci ay bakkaar doy ma sama diggante ak sama borom subhanahu wa taala nit ñi tamit lañu yor ci seen biir tuuti naa ci man koo yeddu ba xam lam lam doon bu fekkee nag eh, ci jëmm ji ma laaj muy docteur Mouhamed Ahmad Lo eh, di doom ci Serigne Modou Lo Issa Serigne bokk ak Serigne Massamba benn ndey eh, docteur Mouhamed Ahmad Lo am na lu ma jot xam ci moom tayit moy, lima li ma xam ci mom moy wax deug yalla xam-xam bu bari de xamna ko ci mom xamna ci mom tamit ak yar yaru nak baax na ci gone waye magit bu yaro na ci mom yar xamna ci mom xam-xam bu bari xamna ci mom ak mandu xamna ci mom tamit ak ragal yalla ci li feñ ci kaw nak yata wala sarair waye dal li ma xam ci mom moy borom xam-xam la bu fekkee nag maa laaj pour ndax man ngaa jëriñu ci am mbindam du ma wax ni am na benn boroom xam-xam ci àddina boo xam te ni warees naa wax ni wareesute mën a jëriñu ci am mbindam ala kulli man xam naa ko shaxsiyan bal jàngal na ma sax jàngal sax def na ma ko wax dëgg yàlla waaye li ma xam ci moom daal mooy xasaaratul ilmu bari na xam li ma xam ci moom mooy gisuma ci moom ak mooy yàlla gis naa ci moom maanaam muy jëmm joo xam te ni xam naa ni am nag ragal yàlla subhanahu wa ta'ala ni ki noonu it àddina sépp àddina sépp man li ma wax li ma gëm laay wax àddina sépp sépp sépp suñu àndoon suñu àndoon ñun ñëpp wax ni docteur Mouhamed Ahmad Lo baaxut wala yeefar wala nangam la du tax xaadim bu sa gëm ni loolu dëgg la ndax dund naa ak moom xam naa ko du tax xaadim bu sa tamit ñàkk a mën a jariñ ci ay mbindam wala am jàngaleem loolu moom du mës am ci kaw suuf bu soobee suñu borom lii may wax nag addinullaha bihi mooy li ma gëm Euh, son bi fu mu mën a àgg ak fu mu mën a jëm lii laa gëm man li ma gëm mooy boroom xam-xam la li ma gëm mooy ragal na yàlla li ma gëm mooy euh, euh, nit ku baax la ci jikkoom li ma gëm mooy nit kuy juum la nit kuy juum la nit kuy juum la comme ni ñëpp di juume ndax xuliqa al insaan summiya insaan li kasratin isyaanihi nit moom ku ne la duma juum rek muy xaadim muy keneen amul ci àddina amul ci àddina Euh, lii daal mooy li nga xam te nii moom laa moom laa gis ci laaj bii nga ma laaj doonte bëgguma it di wax ci ay jëmm naan diw nii la mel wala diw nii la mel ndax loolu day indi tasnif te tasnif baaxut waaye ala kulli xaal daal ar rajul aalim wa yujibu nii fi xasaarati ilmihi borom xam-xam la ci yéem na ma ci xam-xam bu bari macha allah tabaraka wa taala dinaa jëriñ ci moom di continuer di jëriñ ci moom bu ko àddina sépp bàyyi woon dinaa continuer di jariñ ci moom. wane yàlla mooy ki gën a màgg lépp mooy ki gën a xarañ lépp mooy ki ëpp yermande ëpp ab lewetaay doon koo xam ne képp ku ñu wattu moo la wattu sunu borom tabaraka wa taala nee na fa allahu xayrun xaafisan nee képp kuy wattu wala ngay garde dara sunu borom tabaraka wa taala moo la dàq garde wa huwa arxamu te kuy am yermande itam. sunu borom tabaraka wa taala moo la ëpp yërmaane ndax la nga am ci yërmaane moo la ko mosal wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain